jee mbën ma waas ca géew ma waaye bi yoon ki sàjji lamb ji mooy le numéro un Fallou Ndiaye borom Ndiaye production mbokk yi kii moo woote bisu le 31 octobre 31 octobre nag mbokk yi bés la ci biir bés yi ndax dañoo boole xale yi nga xamante ñoo gën a xarañ ci seen génération combat bu mag bi Ada Fass ak Tafa Mbër mbokk yi ñu tuddee ko ki nga xam mooy jeu technique l'ancien lutteur ki nga xam moo bàyyi lamb ñëw ne day jàppale lamb fan lay xewee ñu ngéwél de boole kook armée bu ngéwél laa ilaha illallah mbokk yi ndaw combat bu rëy yow mi bëgg a seetaan bi bu ko kenn nettali dawal gaaw seen affiche point com mbokk yi nga jënd fa nga xamante ne moom mooy sa code yi kër mbëri ba ci biir géew bi dara du leen ci rëcc image dina leer te it lépp dana mucc ayib qualité bu am solo la leen di jox mbokk yi Fallou Ndiaye le numéro un moo dëkk ak yéen ci bisu le 31 octobre di bëgg leen teg yéen di leen xamal ni lamb ji dina yëngu te bu yëngoo moom rek la bu dul moom eh dara fi yëngu cey numéro un na de cey asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi amaan mbégte contentement yooyu ñuy suivre sur Kelle Info kon niñ koy defee rek à chaque fois te ñu ñëw fii si jàmm gën ñu seet euh, ay champion la wax parce que tamit ay xale lañ marqué seen empreinte ci li nga xamante ne moom mooy làmb donte ñoom ñaar bañ ñëwee ci làmb yàggul euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, petit frère u Liss muy ki nga xamante ni Laurent borom dis mois qu'est-ce que tu veux je foofu fous de ça ba gars yi sax léegi gars yëpp ñu ngi koy jël. loolu daal moom ma jaaxal dama koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi Laurent maa ngi lay waaye noonu la demee di la fay bàjjan taw fee di nuyu àdduna yee di béggee ñëpp yee bilaay di nuyu Sénégal. ñu bari nag dañoo jàppoon ni frère Luis Luis la rek xam nga day accompagner da koy accompagner ñu jékki-jékki à un moment donné ne Laurent day bëre loolu nan la dikkee ci yow. noonu la demee ndax ñu dañoo mbapat waaw lu ñu mbapat sax mënuñu ko bëre si arène man lool leer na ma. non man moom ñu man kii ma daan kii ma buggee daan nii sax fàtte naa duma ma waxaat si moom. waaw naa amatuma temps boobu sax. maa xool lu neex sama kanam. mais ma bëre mbapat ba tas billaay. mosuma daanu si combat nome tournoi moom daan naa. waaw. non xaw ma leen sax te moo ma mënoon ëpp ma doole waaw ñu bare mu daan. ñi nga daan. xaw ma leen. billaahi. da nga doon ñëw rek jékki-jékki dara kaay bëri ak ñoom nga bëri ak ñoom dem sa. naas aar boobu laa doo joobee ak ñoom. Hmm. waaw amul leneen. amoon ñoo ci xàmmi sax. billaahi xaw ma leen. barki yàlla xaw ma leen. billaahi. mais avant làmb Laurent ci lan la nekkoon. man téer laa. Eh. waaw. ba tey nii damay ñëw damaa bàyyi jàng rek di ñëw. Ah. ba may jàng maa ngi bëreeg lépp kay. waaw. ban classe nga bàyyee. damay paase sax ni damay wàccaat sixième. sixième ordinaire. waaw sixième rek laa bàyyi. nga jàng sixième xanaa dañ la dàq. non non maa jékki-jékki bàyyi. maa jékki-jékki rek bàyyi. waaw. sixième damaa jàng de. lu ran sixième loo fa jàng. ay waa ay laadat petit terrain écriture. waaw yu bëri sax. laadat petit terrain écriture. waaw bilaay. jàngoo ligne horizontale verticale. lépp jàng naa ko horizontal vertical tout jàng naa ko waaw. table deux daal lan ko jàng. yow lépp laa jàng. selum table deux. non dama ko resté fii. Ah, kon yow yow kii nañ làkk français mooy parle français bien bilaay. te sixième ordinaire nga nga kiiwee ba pare dégg français. waaw loolu yàllaa ko def si man. bilaay don la waaw. waaw guddi gars yi di la feeñ pour làkk man lool jaaxal na ma de ay nit yu weex tàll kay. waaw. ay tubaab yu bees tàq. Eh, di ma. <laughs> wala. Laurent tubaab bi bees sàq man lool la maa jaaxal man sama jàng man sax daf maa jaaxal tubaab yoo xamante ne dañuy bées tàq. yee dañuy ñëw di ma wax ay affaire nan dañuy ñëw naa ma sali Laurent. ii ma tamit mooy loolu ñu nekk ci rek. yow nga wax leen wala yëngu foofu. ñu fekk baara mbay xeeru raay baara mbay bu wow kong bi. bu tubaab tubaab kii. dafa man tubaab yi may feeñu dañoo wow kong. waaw. am na ay femmes. am na ay femmes yu nice. nan nga xamee yooyu ñu waaw dañoo xees rafet. seen karaw egg seen oom yi. te loolu yëpp ci gént gi lay doon. si gént gi. est-ce ci benn gel ko. gelu tubaab. Ah. non non amuma gel amaguma gel. ci ci gént gi laa. tubaab bi su ñëwee dañ mel ne amagoo at bul doxaan. waaw 6 mois 7 jours doxaan. mais en français lañ la koy wax. waaw doxaan waaw. <laughs> noonu ma ne la ok bon appétit. waaw mu xaay jeex. ma nekkaat si yeneen gént. waaw sixième sixième nga man dama de sixième man li tubaab bi defaral defaralu ko kenn waaw. kon bi daal lim la la ko man rek la ko moo tax nit day jàng ñëw sa xoola safuma. Eh, ndax oh, li ma jàng. dafa doy waar. Hmm. waaw yow yéemu woo si sa bopp. man non nit yi nit yi laa man yéemu ma sama bopp de waaw. doo gisaane yooyu noonu lora. damay seet de. damay seet. gis nga yow sëfa nga sol. Eh. waaw loolu dama kaa gis sama gént. <laughs> yëpp yaa ngi di ma interroger. Eh. waaw gi nga lii samay xam-xam la de. di la ah, fu mu ne nii yaa yow da jàpp ne man ngay waxal nii <laughs> waxoog man de. yaa ngi nelaw di gént yow. man mii di gént dama déplacé ah, samay gént naxuma. Laurent ngeen da de. lu garaaw laa lay <laughs> wax nii. tey bu ñëw si yow euh, avant mu problème am ko wax ay lu mu ci yow. ah yow génneel sarax ginaar. ginaar bu am béjjën. ginaar fu mu am loolu. Ah, ak ronga naat. ronga ñu naat. yow loolu dina baax si yow de. Ah. waaw soo génnee mooy ak gereesu nit. ak gereesu waaw. ma génnee <laughs> dina baax si yow de. Hmm. waaw. kon da ngay ñaan daal da ñaan di seet. non daa am li ma gis si yow. béygeenu naat soo ko sampee sa buntu gaale yow loo yoote di nga am béygeenu naat xam ma nax foo kay amee. <laughs> léegi ren gereesu nit. ay teetal daal laa la mën a jox nga am ko gereesu nit fan laa koy amee. Ah. mooy soirée sénégalais soo fa ñëwee ñu may la gereesu nit. yow yaa koy génne. soirée sénégalais lii ah. King Papa yu sargal. noonu la si soof ñëwee ñu may la graisse nit may la béjjénu naat. yaa ma koy ak ronga ju ginaar. Uh-huh. waaw. léegi tey keneen bu ñëw ñëwee ne dafa bëgg borom kër léegi lan nga koy gée. su bëggee borom kër. waaw mooy loolu su bëggee borom kër moom mooy man daal sama seet. béjjénu naat la. ronga ju ginaar. waaw ak moo ah ku bëgg borom kër yuusoo ngi fi. waa gis naa ay góor yàlla yoo xamante ne soxla nañ. jabar mais seet yëpp seet la. ku ñëw bëgg bëgg mooy loolu jëkkër ma may la si booy booy dana sonn de. alors seet bi laa ah seet bi laa la seet bi. seet waaw ah, nga nee nga da ngay seet. te xale yu jigéen ñi moom xam bu ñu nee Laurent daa a seet pour kii borom kër. waaw mais tamit borom kër ñoom jëkkër lañ bëgg. waaw su ma leen mayee si booy kay dinañ jël fekkee bëgg nañ. lañ la seet kooku ne nga dangay seet. ah kooku ñoom damay seet damay seet. waaw mais daal fekkee moom jigéen bu ñëw bëgg jëkkër moom. fii am na ay góor yàlla yu lamb. mais doo kii ci seet. damay ñëw def te yàlla tax maye ah. waaw. suñ bëggoon ñooñu ah ñu dem feneen. du ma leen jox dërëm. ndax fi ay góor janta la fi ne. mais Laurent foofu yooyu yëpp ñu gis ni fexe nga ba dugg ci lutte avec frappe ñu bari naan Laurent nan la mën a def ndax booy bi nga doon bëreel macha allah mbër la muy booy plateau mu nekk xale boo xam te ne ak ci gabareem yow Laurent fan nga jaar booy bi fan nga ko naxee nan nga nan nga def ba nax booy bi. si làmb la commencé si la jeexee. daa waaj ànd ak ay mbokkam ma waaj ànd ak samay mbokk yàlla suturaal ma may man daam. ñaata nga investir ci combat boobu. combat def naa si xaalis bëri de mais combat yi di ñëw mooy ëpp fere. parce que am na luñ ma dee ndax dégg naa Laurent trois combats la signé loolu yëpp dinañ si ñëw mais Laurent sa euh, sa wàcc. ah trois de laa dégg. nax nañ la de huit la huit. huit combats huit laa signé benn promoteur. ban la. kooku kay mooy loolu benn meles la meles. man dama kaa xamati. signé benn promoteur huit combat. ne trois xam waxuñu kan la. non kan la. kan la est que du Alioune Gueye. Alioune Gueye sama ménagère day tëgg waa mais moom moom signé maa ngi moom huit. de. waaw. ma xool kan laa signé huit. biir biir. benn booy biir. parce que information boobu dañ ko am que ni trois combats. waaw. bilaay damaa signé huit combats huit la baal ñett. waaw huit combats léegi ban promoteur la promoteur yi nag dañ may woo ko di ma ay làmb. Uh-huh. yee waaw di ma ay làmb. mais da man maa fi ngir làmb rek pare naa pour bëre. signé wu ma ak kenn. signé eh. signé kenn. yow waay yow yow gars moo loolu naan loolu nañ la posonu ginax de ah huit combat. Laurent sa combat booy plateau. Laurent da ngay gàjje da ngay xeex da ngay màtt da ngay karaate Laurent la tax nga def loolu booy bi. waaw aaru bandi yee bilaay si baaraamu tàng laa bëggoon commencé matt taxawul benn palaas waaw. nañ ma aj mais ma. ñu aj ma de man mii ngay gis ni ah. lu ma maaraa def loo dama koy def lu ma samay booy def loo dama koy def nañ ma aj. balaa maa bari am naa deux avertissement. bari na man kay maa leen yoreel xaalis nii. waaw te mooy loolu. mais ñu bi sa sa sa sa kii Mara moo la màttal tànk bi. non ñompati lañ ma def loo te def naa ko. eh kon ñompati bi Mara bi moo ko. waaw ma ñompati ko. Ah, ma daw jàpp ngemb bi <laughs> wàccee sama loxo moom mooy basé wu si bëre bi quoi ma dompat ko balaa moo ne aya daanu na. léegi kon ah sëriñ bi dafa la ñoppati ko soog victoire soog fee. ah. <laughs> te ba nga dama kaa ñompa nu aya ak nu daanoo benn la. kon sëriñ bi bu la matt ko sa danga koy matt. waaye ñu ne am combat weer duñu sangu njàmpeeg saabu dañuy xëppoo rek billaay keroog laa sangoo saabu karoot soj. yow xëppoo rek rek damaa sangoo saabu karoot soj bàyyi naa sangoo saabu sax ah, ñu dañoo tilim làmb dañoo jaral. Ah, Lora nag xëppoo moom dina metti di. waaw man yow gisoo niñ toogee nii xetang lay rey man damaa tilim de làmb dañoo jaral de suñ si amee liñ bëgg rek seet. mais ko bëree pare kon sangu ñàpp ak gisoo sama bopp saafara yaa ngi siy des ba tey. ah naa sangu de keroog laa sangu saabu karoot soj ma bàyyi saabu karoot. kon dootoo sangatu karoot si boppam xanaa saabu ordinaire. Ah. waaw saabu karoot bàyyi naa ko. Hmm. daf maa sojloo. Hmm. bilaay uppa mi moom la sangoo daa soj gisoo serviette am bi. gars yi dañ di soj. est-ce wu leen de <laughs> waaw ah ay ñaan la rek. Ah, waaw mais tamit xam nga Bou Siteu dafa jël làmb wéer ko miliya mi mi ay nitu démba Malick Ndiaye 37 fu ah miliya ah, miliya la woon. làmb du miliya. Ah. yee day ñëw ay ay kii lay tëkk baag seeraas. Hmm. ñoo ñëpp duñ ko jël. Hmm. miliya la bëgg. man ñoo diwuma miliya. Hmm. boo yee ma def milieu. Bou Siteu na yow ñu def aaru bandi maa ngi moom. nii. takkuwuma ko soxlawuma ko bëgguma ko mais boo yee ko bëgg. Mm. waaw mais jaal. yaawu jaal mën daf may gaañ. duma ko jë moo ma mën fuuf. yaawu jaal yaa mën. Bou Siteu ñooñu la doon ay yaaw yaa ay bodi RFM ñoom bodi yaa mën yaaw jaal ay jadi jadi ñoom yamb. bu si doon yemb taxawoon na moo gën moo ko tëgg billaay wallaay taxawoon na yee mais man mu gaan délégation boobu noonu ah, hmm. ak buusi la nañ demee nee. kii liiru laay liilu moo mag sama magu papa yow da ma bëgg a rey liilu ma mën di. mën. Ah, soixante-dix fois. mais maa mën Balla Gaye. yaa mën Balla Gaye xanaa da ngaa dem ci benn maaraam mu ne la Balla Gaye moom yaa ko ak Modou Lo. yaay dugg TikTok. Balla Gaye laa woo appel vidéo di ka napp. mu ko li ma ne ko yaa yónni ay boy di ma tëkk mu naan non yónni ma kenn ku xaw ma ko. ñemew ma ñemew ma. ndax gis nañ. daa toog ak benn boy naan ko tëkkul Laurent. waaw di ree di muusantu taxul ma baal ko Mourlo mooy si liste beeg Balla Gaye. ma seen maa ngi moom xeexu mbedd la ñu dox mi romb ma wàccee ko si otom ñu xiix mm. waaw ñu àtte ñu ku nekk. Bombardier du ma wax ay waxam. doo ma ko tëgg. ah Bombardier. waaw de comme da ay ay Balla Gaye. Bombardier doo lem benn lem rek la lay lem nga toog. Bombardier waaw baax na Bombardier benn lem nga may lem baax na. benn lem la lem. benn baax na. Hmm. waaw. loolu ñu benn rakk boucher. boobu de. du wax si ku ma xamul de. nañ waxtaan. mais booy boobu génn na ñaar seen kan la. benn rakk boucher. nekkul kook di tëgg bongo. ah bongo lay tëgg. xam damay laaj rek ba xam. ma si xam man xaw bu ma dugal de. nag da ngay gis tëggkat bu bëgg a fës nii rek jox leen ma di wii fekk du mbër rey nax amateur yi. waaw noonu la deme mais dégg benn joow bi la gars doon ban la. barki démb dafa am benn maire bu génn mooy maire Binta Faye. maire Binta Faye waaw. léegi yéen ngeen a xaw a am trait. maire boobu moo ma ñaaw ba manqué nelaw. Hmm. waa yow man damaa amoon buzz. man damaa am buzz man. yow non jël na bii da ngay man aw ma buzz de yàlla am buzz. yee aw ma buzz soxlaw ma buzz aw ma lan mooy buzz. sax bi laay. Mm. li mu def nan nga ko gis. neex maire bi dafay amaña xooma sokoloko lan dëkk localité eh. waaw. ca <laughs> boo ko seetaanee la dafa neex bari man damaa bëgg aar ambiance. Ah. waaw ba pare musique naan te looloo garaaw. Ah, kon di nuyu ñëpp di jégalu ñëpp gaan. <laughs> fi may tàggatoo ak yow mooy saison ba léegi instant bi ah, presque dem na ndax gis nga. saison bi huit combats laa siy balaa moo teg huit. mais jox nañ la ay adversaire ak ay avance jox nañ ma ko lekk naa xaalis promoteur yëpp. xaalis promoteur yëpp nga laa lekk barki yàlla. Ah. waaw man mooy eh, loolu de. koo ci ma si bëreelul nga yóbbu ma jeel. Ah, waaw di ñaanal waa jeel bi yàlla génnee leen foofu noonu. noo gisee fan yii combat MMA yi. waaw. làmb la de. lu du ma dem. ah yow mii ngi xool ko am nga li ngeen bokk. bul nelaw de wax leer nag. sa mère kii. da ngaa baax rek. Ah, kon man sa mère la. dama kaa génne. génneewu ma ko ba ngay commencé émission bi lan laa la wax xaay na comme neex waaw nii laa génte xool xamoon naa su may def émission dina ñëw moo ah. ngi doo ma ko ba may raam laa xam ne damaa soxla woon sa mbër bi mu ne ma dalay rey ah. waaw mais kan moo la ah, si gént yi. la waaw. waaw nga gis ko tey. naas. waaw ay léegi luñ la yee waa tamit xam nga mais bu nag général bu Malika da laa demee noonu kii bëree daanu. waaw su dee lan ay ay kii bi nu mu toll sax ay dama ko wax nii rek bàyyi mu sedd tamit. ambiance la. est-ce que doo créer jarul sax mooy lool. Hmm? ma waree wax rek naa wax barki yàlla. mais qu'est-ce solo gaa la wala da nga jékki-jékki benn instant rek nga lool nekk sa lool loolu man man maanaam man tayu ma ko sax nag. bilaay man lu may wax rek man man xaw ma sax lépp yàlla la rek. léegi di jégalu ñëpp. en français ah en di naan gars yi ça waaw vin avec moi. kese waaw. sa plat mbaam. moom dégg laa bëgg lu dul moom bëgguma. sa sa ndékki préféré. ndékki préféré ma xool. futti futti. waaw bu ah, ah. waaw hmm. waaw. sa reer préféré. reer préféré ma xool ruy. waaw. da nga ruy yow. wallaay soo fi ñëwaat defaral ma ruy. incha allah looy ban gel. Ah, amoo koy bëggante. laay ama xool bi ay ay daggit daggit la. amoo kenn nabu ma kenn bu ma kenn nab. xale luñ ma de samay fans lañ dañ may bëgg. est luñ may kare. ah damaa jantal xool ma. maa ngi jantal laa comme. damaa jàpp ne damaa ñaaw. yi ñu ngi lay jigéen xale jigéen ñi ngi ñëw xam naa ne de képp ku ma si ba ma sotteeku soow tongali danga may bàyyi ndax damay ñaaw lu garaaw bu ma kenn nab. di jéggalu ñëpp. di baalu ñëpp ak waaw. sàjjee mbën ma waas ca géew ma waaye bi yoon ki a xarañ ci seen génération combat bu mag bi Ada Fass ak Tafa Mbër mbokk yi ñu tuddee ko ki nga xam mooy jeu technique l'ancien lutteur ki nga xam moo bàyyi lamb ñëw ne day jàppale lamb fan lay xewee ñu ne stadium Iba Mar Diop xam ngeen Mor Kankang bu fekkee mu neex bu bàkkoo mu neex bu bëree mu neex kuñ ko booleel boo yëmbal xale yëmbal bi moom bu fekkee mu neex bu bëree mu neex waaye yamu ci jël na calcul de boole kook armée bu ngéwél laa ilaha illallah mbokk yi ndaw combat bu rëy yow mi bëgg a seetaan combat bi bu la ko kenn nettali dawal gaaw seen affiche point com mbokk yi nga jënd fa li nga xamante ne moom mooy sa code yi kër mbëri ba ci biir géew bi dara du leen ci rëcc image dina leer te it dana mucc ayib qualité bu am solo lañ leen jox mbokk yi Fallou Ndiaye le numéro un moo dëkk ak yéen ci bisu le 31 octobre di bëgg teg yéen di leen xamal ni lamb ji moom la bu dul moom eh fi yëngu cey numéro un ñëw na de